يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام mbokki jullit yi delsi nañu ci seen émission nasiha bi nga xam ne seen télé bi nga xam ne yéen ko moomal seen bopp 2STV moo leen ko baaxe laay biiru tey bi nag mu ngi aju ci ngëneelu salaatu ala nabi mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa képp koo xam ne bëgg nga texe àddina ak texe àllaaxira yoon wi mooy di bari looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa képp koo xam ne bëgg nga yàlla jégal la say bàkkaar yoon wi mooy di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa képp koo xam ne bëgg nga yonent bi xam sa ndey xam sa baay xam la yow xam seen tur yéen ñëpp yoon wi mooy di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa képp koo xam ne bëgg nga yàlla yëkkatil la say daraja yoon wi mooy di bari looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi képp koo xam ne bëgg nga yàlla faj say aajo àddina ak sa aajo àllaaxira yoon wi mooy di baril looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa képp koo xam ne bëgg nga yàlla faj feebaru xol yi nga xam ne néew na ko ci mucc benn muy kiñaan wala rëy wala xeebaate jikko yi nga xam ne ku ci faatu kenn mu laate dugg safar yal nañu si yàlla musal li gën a gaaw pour raxas sa xol faj ko ci feebar yooyu mooy di baril looy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi sallallahu alayhi sallam moo wax ne ëllëg fa may dëkk ca Firdaws ñi nga xam ne ñooy dëkkaale ak man ñoo may gën a jege mooy ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokki julli ji maa ngi leen di dénk fu ngeen mën a nekk ngeen di bari lu ngeen di julli ci yonent bi ngeen yar si seen bopp tàmmal ko seen bopp tàmmal ko seen njaboot allahuma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim shukran lakum ya nabi salam alayka ya rasul